nit yi néew xet bu nekk ni toog ñi marqué sixième édition bi euh, maa ngi remercier bu baax a baax commission bi nga xam ne ne depuis le 21 juillet 2014 bi nga xam ne conseil départemental ñoom ñu ñi dénk leen affaire culture bi ñu gis ñi siy dox di dox si festival bi ñu ngi leen di remercier bu baax nga xam ne ne Tidiane Sewaan moo ko jiite parce que depuis boobu ba léegi. Euh, ñu ngi fii di liggéey si festival bi bu nga xam ne ne tey egsi neen fii fi nga xam ne ne festival bi egsi na ko di remercier encore acteur yoog partenaires yoog ñu nga xam ne ne ñu ngi jàpp si festival bu ma limee damay juum euh, monsieur le préfet si boppam ñu ngi koy remercier ñoom préfet yi gouverneur ñëpp daal fàttewuñu kenn parce que wax dëgg yàlla su fekkee du woon du feebar bi da doon fekk tey journée bi ñëpp ñu ngi fii Eh, dajewaat di fàttaliku eh, festival pencum ñaani lu nga xam ne ne ethnie yi seen bopp vraiment bëggoon nañ ñu organiser ko mais nii rek lañ ko mën a organiser pour marquer sixième édition bi pour respecter eh, kaddu docteur yi ak président de la république si mbooloo bu nga xam ne su dajee ak feebar bu nga xam ne ngi am fii si adunabi. bi te fàtt ñu ngi ko Koumpentoum amoon na si benn cas si département bi loolu moo taxoon nag commission bi vraiment ñu jël euh, initiative pour ñuy organiser ko nii